asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci seen sit bu am solo bi di info point net wante itam seen chaîne youtube bi di seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen indil benn xibaar boo xam ne rek dafa ñeel jàngoroy coronavirus bésub tey bi journal l'observateur dafa xëy fësal ci xëtam wu njëkk ne am na ñetti nit yoo xam ne jot nañ ñàkk seen bakkan fii ci senegal te li ko sabab di effet secondaire yi nga xam ne kon bàyyeekoo na si ñàkk yi ñu leen di ñàkk ngir musal leen si jàngoroy coronavirus kii di directeur de la prévention bu ministère de la santé nag eh, di docteur Mamadou Ndiaye moom nag weddina li ni mel gannaaw bi nga xamee ne kon mu ngi joxe mu ngi doon def communiqué bi muy def saa su ne ngir joxe tolluwaay jàngoro coronavirus moom nag docteur Mamadou Ndiaye xamle na ne bi ñu tàmbalee ñàkk yi ba léegi fii ci Sénégal amul benn nit boo xam ne kon faatu na. te li ko sabab di effet secondaire yi nga xam ne kon bàyyeekoo na si ñàkk yooyu le nee na nag muy ñàkk bi nga xam ne moom mooy AstraZeneca wala muy Sinopharm kon amu si benn ñàkk boo xam ne sabab na kon faatuk euh, nit fii ci Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewlu